ñu taxaw mu ngi nekk fii nga xamante ne moom mooy Derklé xew-xew bu doy waar moo fi am keroog si àjjuma ba léegi do waa Derklé di jooy seen ay doom yoo xamante ne ni gannaaw benn gaz bu explosé woon fii nga xamante ne mooy kër yaay sagar Diouf moomu nga xamante ne moom si mujj ñàkk bakkanam ak ñaar si ay doomam ak jarbaatam ak ki nga xamante ne frère la moom la ñu mujjee ñàkk tey muy juróomi bakkan yoo xamante ne nii ñàkk nañu ko si keroog boobu nga xamante ne si la gaz bi explosé aussi àjjuma ji mu nekk loo xamante ne lu métti lool lool derk la nag di jooy seen ay ne ñu ngi nekk hôpital ndax fukki nit la ñu woon ak benn nekk fi nga xamante ne mooy si hôpital bi am ñi ngi juróom ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakken chaque jour que jëfee am ku ci wàññeeku tey fi ñuy wax ak yéen si la Ibrahima Diouf mi nga xamante ne frère maam tan sagar Diouf moomu la moom tam ñàkk si bakkanam mu nekk loo xamante ne lu métti loolu la nañ xool nag xam lan moo ko sabab parce que xam ngeen ne mbirum gaz dafa doy waat donte coow li bëri woon na ñii naa dafay roon téléphone mu woote mu décroché coow li bëri waaye bi ma ñëwee ba ci kër gi nee nañ ma dara amu ci gaz bi moo de jékki-jékki explosé bi nga xamante ne si explosé moom tante Sagar moomu ñàkk si bakkanam Sagar Diouf mu nekkoon mère de famille boo xamante ne ni lu métti lu ñàkk si taawam ak beneen doomam ak jarbaatam ak ki nga xamante ne frère la mu nekk loo xamante lu métti loolu moo xew Derklé moo tax tey émission xew-xew ñëw fi fii ñu taxaw nag mooy maison familiale bi kër gu mag gi nga xamante ne fi la tonton Diagne jógee woon dem sañc këram fële nekk faak njabootam googu nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen bakken ñu fas yéenee dugg nag xuus xool mbokk yeeg xarit yeeg am jàmm xool ni nga xamante ne moom lañ jógee xew-xew bi nga xam moo am si Derklé mu nekk lu metti lool lool gannaaw incendie boobu nga xamante ne moom moo xew fi Cheikh dag may topp ñu daal di xuus dugg si biir. waaw li fi mooy bonbonne de gaz bi bi ñu te ñu ngi ko jënd ci beneen boutique bu dul bi nga xam ne fa lañ daan jënde gaz sax quoi après euh, bonbonne ñëw apparemment c'était défectueux waaw moom mu bonbonne bi baax baaxul parce que bonbonne bi. kenn mësul gis bonbonne boo xam ne nii euh, euh, soupape de sécurité boobu bi am euh, kii bu ñuul bi plastique bu ñuul bi ak ak ak boulon bu bu kii boobu ah, muy sauté mais ce que les policiers ont vu c'est que c'est le bouchon de sécurité qui a sauté fekk ne gaz bi di takk donc flamme bi di dem parce que xam nga le truc c'est en liquide quoi voilà liquide la comme ça muy muy muy dem nag di léegi ñu xaj ñu gàddu ko di ko di di ko génne mu dal ci fauteuil bi nekkoon ci kii bi loolu moo amplifié kii moo amplifié flamme yi quoi je te dis donc euh, c' mon fils mon propre fils qui est décédé le le le le dimanche le lundi sa maman décède aujourd'hui euh, son cousin décède waaw ah. waaw am na onze personnes la ñu donc y a que trois qui étaient là qui qui étaient peut-être dans une situation un peu plus compliquée que les autres quoi mais c'est à des degrés divers quoi ku nekk waaw kenn ki mooy sama doom kenn ki sama jarbaat parce que ba jarbaatu sama soxna la quoi sama soxna bàjjanam la quoi voilà Cheikh ñu ngi nii ci kër gi nga xamante mooy maison familial bi ñu ngi toog kenn koo xam ne ci kër gi la bokk goro la fi muy tonton Ndiawar Diop di borom këru suñu yaay Maguette ñu ngi koy masawu baax a baax tonton ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu ngi lay masawu daraam bi nga xam ne moo dal ci seen kaw Sénégal yëpp di ko métti. waaw loolu moom am na quoi lu métti dal na ci kaw moo tax ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax incident bii daal métti na ndax 11 qui ont été blessés et évacués dans les hôpitaux comme CTO euh, comme hôpital de Pikine de Thiaroye ak Dalal Jàmm mais xam nga suñu borom kenn du xëcc ak moom dafa def nag ne au moment où je vous parle nii y a cinq victimes yoo xam ni dañoo décédé donc euh, affaire bi suñ ko remonté dans le temps incident bi mi ngi am depuis le vendredi après 13 heures. donc euh, su affaire bi am rek la ma soxna si aviser donc yàlla def euh, le samedi dama waroon dem bourde ba euh, premier bourde à mu wax ma ko ma ne bon kon naa xaar samedi ma dem léegi moo bëgg a dem deuxième bourde bi le dimanche mu woo ma vers pour wax ma ne ah, am na ku génn àddina ci ñibri la léegi c'est le lundi matin que je me suis déplacé jóge Thiès alors ñëw à Dakar bi ma ñëwee ba ci MG bi. ci la ma wax ne ma yaayu xale bi di Sagar Diouf di soxna ci grand frère bi ñu wax Mour Diagne moom tam génn àddina donc leen di man maa fi ñëw si ñu fi jëkk ma ñëw fekk nit ñi ñu def formalité yi pour mën a am donc yàlla def ay booru 19 heures lañ leen inhumé ñoom ñaar la lendemain kenn gaañu muy troisième démb tam beneen doomu Moodu gaañu ak goroom ki ñuy wax euh, Ibrahima Diouf moom mooy nijaa ji xale yi en grosso modo noonu la situation bi taxawee ñu ci gërëm nag taxawaayu waa jëppal waa Derklé di ci gërëm euh, taxawaayu autorité administrative yi particulièrement le commissaire de jëppal qui a fait un rôle très important pour habiliter toutes les autorités di gërëm tam waa hôpital noonu daal en résumé noonu la situation bi demee mais pour préciser que li nga xam ne moo nekk source su incident bi mooy dañu jëndoon gaz bonbon léegi bi ñuy dindi capsule de sécurité bi ci la bii bi sauté fekk amoon na beneen gaz bu nekkoon ci cuisine bi la bonne dame sagar était à l'intérieur xam nga bil bi bu génnee rek sauté gaz bi day dem bu demee nag flamme lay wut ak conduite ci la nag jël euh, flamme euh, enveloppé lépp ci son cuisine bi léegi nag euh, la femme de ménage bi nga xam ne moom ak ndaw si ñoo nekkoon ci waañ bi jëlaat bonbon bi di ko sànni par mu fakastalu daanu ci la ko doomam ji nag di jëlee sànni ko ci canapé mu attaqué climatiseur bi kat attaqué le premier étage donc comme heure jumaa la woon ñoom Ibrahima ñu ngi doon préparer pour wàcc ak yeneen xale yi ils sont allés au secours de la dame ñoom ñëpp nag xam nga effet gaz bi ak brûlure yi moo leen jàpp quoi donc euh, ce qui fait que vraiment l'inévitable était là loolu daal moo doon source incident bi quoi. mu nekk lu metti lool parce que ñun bi ñu koy dégg coow li dafa commencé di bëri ñu wax dafa yoroon téléphone ci waañ bi ak yooyu mais c'est bien à préciser moo tax bu ñu ñëwee ci famille bi ñu laaj lan mooy cause yi comme ni nga ko leeralee nii baax na au moins ne li waral yëf yi du portable mais gaz bu ñu doon dajji la di ko changer mu mu exploser. waaw en effet xam nga euh, nit ñi ñoom kenn du leen tere ñu wax mais quand à la source moi j'étais là-bas au moment où le constat donc xam nga bi. coulisses di yem comme ça moi j'étais accompagné du commissaire El Sow de Jëppal donc déclaration yi ñu fa nekkoon rek la ñuy mën a jël ñooñu nag butéel gaz bi mi nga fa woon butéel gaz bi bii bi nekkatu ci woon kon bii butéel gaz bi moom moo sotee léegi nag bu dee ku xam nu gaz di demee di nga xam ne kon foofu amul woon portable donc loolu la yàlla def muy bii bi moo sotee bi mu sotee amoon na beneen gaz bu doon takk. gaz bi dem ci flamme boobu mu enflammé donc comme la maison et trop étroite donc mu attaqué climatiseur bi attaqué branchement yi nga xam ne yi nekkuñu woon sous glotte mu commencé jël feu daagi gaz bi yéeg ci kaw mu flamme bi topp ko xam nga day nekk feu noonu la demee mais il n'a été jamais question que portable moo ko provoqué doon parce que bu ko portable woon du woon mel nii donc da ngay xam li nga xam ne nii mooy li jaadu quoi nga di ko wax ndax ñi génn nañ àddina yal na yàlla def yërmande ci ñoom te am na ñeneen ju ci des ñu nekk ci ay situation yu critique xam nga il fait une très forte chaleur donc médicaments yi rek pour amoon ko déjà sa a posé énormément de problème donc su fekkee da ngay témoigner da ngay témoigner loo xam donc ñun ñëpp ñu rafetal rek te ñaan yàlla ñi fi jóge yàlla mën ñu may ñoom am muñ ko muñ ba pare les mesures idoines à faire ñu def ko parce que gis nga comme ni oto di amee extincteur du coûter lu chair ay 5000 lay jar waaye dafa war a mun a am loolu à l'entrée xam nga soo ko xoolee fan yi rek réseau sociaux yi ñu ngi doon euh, véhiculer benn message pour inviter les gens su gaz tàkkee naka lañ koy fay donc beneen communiqué ñëwaat wax ni non kenn du ko ci def farine mais poudre bi nekk ci extincteur lañ ko def. mais de l'un à l'autre bu mu ci mënti doon rek mooy la prudence prudence bi nag mooy plus jamais cela mooy ñu jël ay mesures nécessaires femmes yi ñu gën leen sensibiliser mais lii moom xam naa ne lu waroon am kenn mënatu ci woon dara yàlla na fekkee ci rek quoi amiin yaa baax a baax di la merci beaucoup kontaan nañu parce que lii amoon na importance donc man góor laa ci kër gi moo tax comme bi ma ñëwee lundi man maa def démarche yi waa police ñëw ñu ànd def conseil moo tax man dama mujj xam li xew moo tax mu mën a waxtaan ak yéen jërëjëf. Hmm. voilà Cheikh mu ngi noonu dégg ngeen ko ni mu ko suñu nijaay ji nga xam ne goro la ci kër gi expliqué mu nekk loo xamante lu am solo lool la pour ñu préciser ko nga xamante ne mbir mais mbirum gaz la xamante dañ ko doon ubbi mu explosé ji nga xam ne lu mat juróomi nit ñàkk nañ ci seen bakken mu nekk lu metti lool dañuy wéyale suñu émission xew-xew rek xuus dugg ci kër gi jël témoignage yi xool li nga xamante ne jikko yi seede yi lépp loo xamante ne leer na rek ñu ànd ak yéen ci biir 7TV parce que ñoom nee naa duñ ko dégg maa ko dégg wala maaka dañuy ñëw ba nga xamante fa lay fi xewee ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk si fin bi expliqué ñu yëf ñi mu demee Cheikh dag may topp ñu daal di xuus dugg. voilà ñu ngi toog ba tey rek ak bu famille bi si xew-xew bi nga xam ne moo dal fii mu nekk lu metti soxna si maa ngi lay fay soxna si. ñu leen li ñu bokk. merci jërëjëf yal na yàlla bindal la tiyaaba. noo yëgee xew-xew bi dal si askan wi nga xam ne senegal yépp ko metti waaw xew-xew bi de wax dëgg yàlla tiis la bu dal suñu kaw kenn xaaru ko woon. waaye nag yàlla ak ndogalam ñu nangoo ko noonu di ci sant yàlla bu baax di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa waaye dawli yi yal na leen yàlla yërëm yal na yàlla xare leen daw si ñee des hôpital tam na yàlla teg leen loxo delloo leen seen sago ndax yëf yi metti na trop metti na torop ça a tout toute famille vraiment c'est très dur mais ñu delloo lépp ci suñ borom subhaanahu wa taala noo ko yëgee yow yëg-yëg bu metti bu metti ndax man dama feebaroon fan yëpp dama sibbiru woon sax dama jóge Touba màggal gi daal feebar sibbiru muy yëg-yëg bu metti ndax samedi daal dama toog rek sama rak sama mag woo ma bi ma woowee ma ni ko day roqee na nga def ça va ça va mbaa jàmm mu ne ma du jàmm kay ma ko lu xew mun ne ma sama turandoo papa dee na ma ko eh, lu rey sama turandoo papa mu ne ma ummi gaz a explosé xanaa déggoo ko gaz a seen kaw ma leen ma ni ko gaz nu mu explosé mu ne ma sagar da doon togg reer gaz bi explosé xale yi ni dañ koy aidé mu génn ci la xale yi daal lakke ñoom ñëpp évacué nañ leen ma ni ko ha loolu day na waar noonu ci guddi gi la ñu dawee ñëw sama frère bi sax bala ñu ñëw woo nañ ko mu ne ah yéen li ngeen ci am rek laa ci am ndax man sax sama portable dafa fayoon ma julli ba pare fàtte taal portable bi woo nañ ma ba sonn bi finalement bi may waaj a wàcc daal ma ne naa taal portable bi ma taal ko rek sama doom ci nekk France woo ma may jàmm sante ak moom mu ne ma waa papa xanaa yëgoo lu xew ma ne ko lu xew mbaa jàmm mu ne ma yow ñépp woo nañ la gaz explosé ca kër ga sama ñoom yaay ma mu jaaxle nag jaaxle ci kàttanu yàlla bi mu ñëwee fekk na tamit évacuer nañ leen dëkkandoo yi ñëpp jàpp ci muy lu metti nag tiis bu metti metti metti lii moom yàlla rekk ko mën yàlla rekk ko mën waaye yal na ko fi yàlla yemale nag lii fi des yal nay muuram muy papa ju baax bu attentionné ci njabootam jabaram nag kenn gënu ko ñun ñi de buñ doon yàlla dara sax du xosi jabar ji ndax jabat ji bëgg nañu taxawu nañu ci suñu kër gi toppatoo nañu foofu ko yàlla jële nag loolu ku ci def jàngat xam ne yàlla rek mooy dëkk ndax lekk rek la sagar mën a joxe sagar foo ko fekk mi ngi togg lekk mi ngi séddale mi ngi jox nit ñi kii daal yal na àllaaxira di flaayam yal na àllaaxira dina flaayam metti na ba fa mettit mën a yem waaye nag ñu ngi koy doyloo yàlla xam ne moom rek a mën lii ñu sant ci yàlla nag bu baax di ci sant yàlla di ko ñaan moom mi nga xam ne moom rek a mën lii ci des yal na ci yàlla teg loxo yàlla yal na yëkkati ñi ci des barke nabi Moustapha sallallahu alayhi wa baax a baax sa jabar jooju nga ñàkk kon. sama jabar jooju ba ñàkk kay di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal. di ñaan ñaanam nag yàlla bu mu génn ci sama gémmiñ gi ba ba ma koy fekki fa mu jëm ndax nit ku baax la nit ku bëgg mbokk nit ku sëyal ñu li des ci njabootam yal na ci yàlla teg loxoom yal na yàlla fay ko liggéeyam ci njabootam gi fi des barke bi Moustapha àllaaxira di noflaayam jëkkëram ji yal na ko yàlla delloo ci sagoom yal na ko yàlla dëgëral mu gunge njabootam gi ba naawtal leen ci barke nabi Moustapha sallallahu alayhi wa na torop bu baaxee rek Cheikh ñu dem voilà ñu ngi nii toog ak kenn koo xamante ne njëkke la ci moom mag la ci moom ndax soxnaam la woon euh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di la ziar. waaw maa ngi leen di fay bu baax di leen gërëm ci seen teewaay fii def ngeen lu rafet parce que drame bi bi mu amee ba léegi benn média ñëwu fi maa ngi leen di gërëm seen taxawaay ak seen teewaay. noo yëgee xew-xew bi nga xam ne moo dal ci askan wi mu nekk lu métti lool. ah man de maa ngi sëy ngor waaye dama jékki-jékki am ay coup de téléphone ma ñëw gis appel en absence ma woote waat kenn wuyuwul magam jékki-jékki woo ma ne ma dama seen waa kër aw ma seen numéro waaye ndee la ma ne ah mu ne ma ol ma seen waa kër neen suñu kër dafa lakk waa kër Modou Diagne yëpp lakk nañu. ma daal oo sama grande sœur bi wax ko que naka dem leen daw leen ngeen dem ñu ne dem nañu mais fekk ñu kenn kër ga ñëpp dem nañ CTO ma daal laaj kaja kàjja mu ne ma ne ñëw CTO fekk ñu fi du ñu dugg mais moo gën ma ne leen dem leen ngeen jël ay oto ngeen fekk leen CTO ndax boobu euh, waa koñ ba yëpp ñoo nekk biir CTO CTO était bondé de monde ba kenn mënu fa dugg waaw loolu moo tax mais man ngor laay sëy dama yéex a ñëw ndax dama yor malaat sama jëkkër moo feebar moo tax mënuma si sax fanaan mais damay ñëw di dem di ñëw di dem. sa diggante ak yi nga xam ne moom moo fi jógee mooy Adja Sagar nekkoon sa soxna. Adja Sagar nag sama soxna rakk la mais dem na ba weesu soxna sama petite sœur la parce que bi ko sama rakk bi takkee maa ko jébbale fële Ngor man lañu laaj ma yóbbu ko foofu si hôtel yi jébbale ko. ba duggaat oto indil ko seen waa kër seen waa kër di ma gërëm su amee bëtam xonxee man lay woo téléphone ma yedd ko mu déggal ma lool ma kontaan si lool ba sama benn doom jigéen bi ma am sax moom laa ko ndeyale bi ma koy mayee ah man dey musuma def dara lu ma naxari lu dul jour bi mu génnee àdduna jooy yooyu sama xol tàng sagar musul tàngal sama xol sagar musul xonqal sama bët sama yaay noonu di toppatoo sama yaay ma di ko dégg sama xol di sedd man daal sagar daal ñu ko fay dañ koy bàyyee yàlla mi ko indiwoon te jëlaat ko mu fayal ñu ko man daal li ma koy ñaanal mooy njabootam gi mu uuf dem mu yeewoo àjjanay firdaws ñu yeggale fa seen ndaw man loolu rek laa koy ñaanal parce que man sagar kenn amul fayam kër gi ñëpp la yemale woon wàccee boppam si suuf lu baax lu ne mu defal ñu ko seetul mag seetul ndaw ñëpp la respecté woon su jëyee amee si kër gi ndox mu sedd lay yor ku jooy mu delloowaat la sa bopp jox la ndox nga naan mu dëj la ba barka démb sama caatu yaay mi jëkkëram doon jógee màkk sagara yor lépp boo waxee mu ne bàyyi leen sagar téye nañu téye na sama yaay aar ko di ko yiir di togg di ko indil sama yaay di ko gërëm subaax ngoon guddee bëccëg sama yaay daf koy gërëm bay jooy man mii nag j'ai le cœur meurtri j'ai le kër brisé parce que man sagar fi ma toll woon ñi ma bokkal ndey baay billahi wallahi tolluñu ma fa ndax dama yor kat xale yoo xam ne dañu feebar te sagar moo may yedd di ma remettre à place sagar daanaka xale la woon waaye xelu mag fa tabaarakaal la moom la yor waaye comme yàlla moo ñu gën a soxla nit ñu baax ñi yàlla bu soxlaa jaam soxla kuy perte du jaam ñu bàyyi sagar te di ko ñaanal mu yeewoo àjjanay si ah doomam yi mu uuf yóbbaale sama càmmiñ gërëm na ko sama yaay gërëm na ko sama njabootu yaay gërëm nañ ko waaye nag daf di bu dara jëye amee dañuy wax waaye moom nekk na nit koo xam ne elle était très compréhensive bi muy togg yorul portable bidon bi mu yor moo am défaut waaw mais yorul woon portable bidon bi moo am fuite loolu la waaye nag fii àdduna la dañuy nangu rek parce que bu ñuy waxee li wax li voilà mbokki téléspectateurs yi gis ngeen tey li nga xamante ne nga xamante ne mooy famille Diouf ak famille Diagne nga xamante ne mooy famille tonton moom mi nga xam ne moom moo ñàkk soxnaam ak ñaari doomam soxna soosu ñàkk jarbaatam ak magam boo xamante ne moom moo tudd Ibrahima Diouf moom itam ñoom ñoom ñëpp ñàkk seen bakken gannaaw seen gaz bi nga xamante ne moom lañ doon togge doon ko changé mu explosé mu nekk perte bu metti ñoom ñëpp mujj si ñàkk seen bakken mu nekkoon juróom 11 euh, personnes si kër gi ñoom juróom ñi ñàkk seen bakken téeméer mu des juróom benn ñoom ñëpp ñu nga hôpital yal na leen yàlla fëggal seen bopp may leen wér deen massaw nag bu baax a baax di comprendre aussi parce que woon nañu tonton Mamadou Diagne ba nga xam ne moom mooñ jox accord am pour ñu ñëw fii si njàppandalu nday dem bi nga xam ne mu nga fële si États-Unis ñoom ñëpp ñu am paste fu ñëw def ay seede si li nga xam ne moo fi am donte bi ñu ñëwee si kër gi am na njabootam goo xamante ni bëgguñu woon ñu wax dañ leen di comprendre parce que boo ñàkkee sa yaay ñàkk sa ndijaay ñàkk sa euh, ñaari frère dafay nekk loo xamante ne lu métti loolu mais dañ leen koy nangul euh, famille bi nga xamante ni fi lañ nekkoon muy euh, famille Pape Ñanku Diagne mooy kilifa gi fii ñu ñëwoon si këram ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy sœurs yi ak frères yi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo ñàkk seen jabar ñàkk seen ay doom mu nekk loo xamante ne lu métti loolu loolu la den wax ne yàlla na fi liy gëj coow li nag dafa bëri woon ñi di wax ne portable la yoroon ñi ne wax yorul portable gaz moo explosé mais bi ñu ñëwee ba ci kër gi xam nañ ne gaz bi moo explosé du portable la yoroon ndax portable maman Saga nee ba léegi mu ngi nii di fonctionné te kul gaañu si lakk yaakaar naa sa portable du nekk fii nga xamante ni nga sa borom kon gaz bi moo explosé dafa bëri woon moo wax tax sa émission xew-xew ñëw fii pour am si lu leer naññ naññ naññ yéen itam ñu def nga xam ne ñoom ñooy liggéey yu mel ne ñu gën si bàyyi xel parce que erreur de fabrication du faral day faral di am si liggéey mais ñu gën si bàyyi xel rek te xam ne lu si nekk rek bu amee jéeya day metti jaajëfal naa leen bu baax a baax di jaajëfal nday dem mi si États-Unis sonnoon lool pour émission xew-xew bi am di jaajëfal aussi tonton Modou Diagne mi nga xam ne moom moom mooy borom këru sagar moom moo ñàkk ñaari doomam yooyu tam nga xamante ne mooy pap ak ki nga ne moom mooy ñànku jaañ ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaale li leen u baax a baax rendez-vous incha allah maa di lay doonaat si émission xew-xew caméra bi Cheikh Saad bu laa ci àndaloon waaye ki nga xam ne mooy oto bi muy paaloo di leen jaajëfal coordination bi ñoom Papis Mbaye ak Souley Diouf Souley Souley si ñoom ñëpp jërë ngeen jëf ba mardi incha allah si beneen 7 TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, 7 TV est au canal 10. Sur le bouquet Canal+, votre chaîne de tous les événements est au canal 218. 7 TV